ñaajo di tekki ci làkku séeréer ci jàmm lay dox jàmm jooje mu mel ni rekk loolu la njiitu réew mi di wër gannaaw bu mu wootee dialogue fii ci jam ñaajo ngir mën a waxtaan ak acteur politique yépp senegal élection bu ñu dàq kenn newul élection du am doomu Sénégal a ngi waxtaan seen biir loolu dafa warul jar ñu ñuy ŋawti ŋawte ci àdduna bi lu ne jàppal bàyyil Sénégal jàppal bàyyil mel nu àdduna buy tukki président de la république nee na duma candidat wutatuma mandat le 2 avril ma jeexal sama liggéey damay dem sama yoon waaw ah, loolu loolu war na tax coow am ci réew mi bi la bés am solo lool 2 avril nar a nekk bis bi nga xamante ni nii ci la mandaam war a jeex ci réew mi moo waral ba président Macky Sall di xamle nii li mu bëgg mooy ñu amal ay élections ci jàmm ba ñu war a bokk mën cee bokk. la ñuy def après la 2 man dinaa saisir conseil constitutionnel xamal ko sama xalaat wax ko it mu wax ci loolu ndax si njëlbeen ga ñoom ñooy mujj kàddu googu waaye assises yi am nañ ci wàll mën nañ ci waxtaan. gannaaw ay. jàmm projet d'amnistie bi nga xamante ni nii fan yii yëpp ñu ngi koy waxtaanee moom mi lay xamle na ni dina ci waxtaan ak ay ministres am ñu xool ana naka la ñuy amalee benn projet de loi ngir rek ñu mën koo jébbal député yi. réew day toll foo xam ne dañuy dépasser li nga xam ne moo nekk ci xol yi en tout cas loolu mooy sama position et je l'assume devant la nation mais députés, ceux de notre majorité, j'engage nos leaders et j'engage même les députés de l'opposition pour ñu ànd ci loi boobu ñu tuddee loi d'amnistie pour dépasser ces difficultés. mu bari woon lool ñi ñëwoon teewee bi la dialogue bokk na ci ñi nga xamante ni nii ay leader politique lañ ñoo xam ci opposition bi wala ñu ànd ak nguur gi ay acteurs non alignés wala sax ñi bokk ci société civile bi.